téléspectateur Touba Allemagne TV comme ni ñu leen ko diggee woon depuis suba ñoo ngi nekkoon ak yéen àndandoog yéen ci liggéey bi nga xamante ne moo di fi ci tollu sëñ Saliou comme ni ñu ko waxee nekk xel kom ne sëñ Cheikh Saliou moo euh, a luy waaj a noppi ñu toog ak ki nga mooy kenn ci gars yi nekkoon ci euh, bërëb bi di liggéey muy sëñ Assane Fall gannaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko jox ko wàccuwaayam ñu ngi koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur Touba Allemagne TV sëñ Assane ñu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah eh, gannaaw ba sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba wér di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Fall di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou sa borom ay fanam te ko loolu sax di ñaanal tam suñu jàmbaade Cheikh Saliou Mbacke sa borom yokki leeram te tasuñu ci barkeem eh, di santaat Serigne Touba wér eh, te ko di ko ñaan tamit. ci barkeem ci mbaaxam saa borom defal ñu tawfiq ak taysiir ba ñu yàgg a fekkee lii nga xamante ni mooy liggéeyu xelkom bi di mbàcc mi di ko yàgg ànd ak tamit ñi nga xamante ni mooy suñu mbokki taalibe yi rawatina ndongay tarbiya yi Serigne Saliou yi fédération bi di leen sant bu baax a baax a baax di sant tam waa télévision Touba Allemagne TV di leen ziar bu baax a baax xamante ni moom ñun dañoo nekk ay ndaw te euh, jamono jamonoonte ki nga xamante ni euh, mooy Serigne Saliou di koo xamante ni daa fees dal ak yërmande rawatina ci euh, ci ndaw ñi looloo waral tey yàlla suñu borom dogal ñun ci leeri Serigne bi moom lañ ciy fekkee te it moom képp lañ xam te daanaka ñun ñi ñu ci bari daanaka ci réewu taax yi lañ juddoo lu mel ni ay mbay ak yooyu sax daanaka liñ koy. daa bokk ci loo xamante ni mooy cosaanu murit te nag euh, doon loo xamante ni tam ku ne da ngay toog sax di ko yàgg bëgg di ko reewee kon nag yu mel nii daanaka bu amee day doon loo xamante ni ay motivation lay doon rawatina ñoo xamante ni amaana dañuy bëgg a liggéeyal sëriñ bi te daanaka doon xam fu nuy jaar occasion yi bu amee nag dañ ciy profité kon am na ñoo xamante ni ñoom situation de profit lañ ciy nekkee ñëw daw liggéeyal ci sëriñ bi ndax daanaka amuñu yenn waar yoo xamante ni fa lañ ko mën a yëngoo am na tamit ñoo xamante ni tamit dañuy ay taalibe sëriñ bi sëriñ bi yaral leen boppam euh, ñoom it ñu ciy profité tamit saa su ne di ko ci gën a delloo njukkal ndax daanaka ñu ci bari daara ji ne woon ba yeewee ko euh, ñu nit tamit suñu côté ñu doon ñoo xamee ni daanaka yarawunu daara ja waaye ñu ci ëpp daan daan nañ fa dem di jaxasoog ñi nga xamante ñoo fa nekk ba dem mu mu jur loo xamante ni day mel ni ñëpp fa lañ jugee ñun nag amaana nag ci côté boobu daanaka ci lañ bokk loolu mooñ ci boole daanaka Euh, ñu ngay ànd ak euh, ndongay tarbi yi nga xamante ne ñoo nekkoon Touba Notaire di daay daayira Kanzul Muxtadin seen jëwriñ di sëñ Ahmed Bam mu nekk jàmbaar loolu moom nag ci waaram ci ndigalam ñun ñun ñun ñun ci loolu la ñuy ñëwee fii euh, gannaaw ba nga xamante ni motivation mooy liggéeyal Serigne Saliou moom mi nga xamante ni tey lépp lu xam tey ci Serigne Touba daanaka ci yàlla mbaaxam la tey bu ñu demee tey ba ay di jàng xasde yi di liggéey di bay daanaka loolu ci mbaaxam la moom la ko Serigne bi jaarale. kon nag loolu nag moo nekkoon sabab bi nga xamante ni daanaka moom moo ñu fi gën a moom moo ñu fi gën a yebal si ñu di ci sant bu baax a baax waaw loolu la. daanaka liggéey bi ren moom mi ngi tàmbali tey ji la tàmbali le cinq novembre bii nii waaye daanaka ci ci su ma juumul premier woote bi daanaka mi ngi nekkoon 2013 su ma juumul bi nga sëñ Cheikh tàmbalee woote. daanaka boobu ba tey ñuy ànd ak jëriñ di fi ñëw saa saa su ne chaque année début bi nag metti woon na loolu ndax mbooloo mi daan na néew waaye yàlla ak mbaaxam rek ak li nga xamante ni daa doon loo xam lu dëggu gën moo tax saa su ne day yokk te tey boo xoolee daanaka li liñ fi liggéey nii tey ci benn bëccëg daan nañ ko def ci ay juróomi fan wala juróom-ñaari fan te tey boo xoolee tool yi jeex na fii ci Touba daa euh, fii ci Touba Daaru Xudus daara Daaru Xudus numéro 8 lool yi tey daanaka jeex na li fi des moom mooy roñgoñ bi amaana camions yi tey buñ disponible yoon ba mat bu mu yóbbee gerte gi ba noppi tey buñ ci gontee mën naa jeex kon suba mën nañoo yeewi ko loolu nag nekk na loo xamee ni euh, Pastef nga xamante ni mooy murid yi gin am ak yeewu tamit ci li nga xam mooy liggéeyu xel kom ak xéwal yi fi ne moo tax saa su ne rek mbooloo mi day gën a yokk dañuy gis ni li teewaay bi di te rappel ni xel ko moom daa doon bërëb boo xamante ni Serigne Saliou moo ko sancal boppam moomal ko boppam mu toll ci cinq 45000 kilomètres euh, carré 45000 euh, hectares bokk du moins euh, doon bërëb boo xamante ni bu sell la dara am fi lu dul jàng arxuraan liggéey jaamu yàlla jàng xasde yi ak tarbiya loolu moo fi am juróom ponk yooyu kon nag nekk na loo xamante ni fii fii murit bu ci nekk daf fee war a ñëw même bu dara Serigne Touba defal na la loo xamante ni mënoo ko fay Serigne Saliou itam defal na la loo xamante ni amaana mënoo ko fay kon nag murid bu ci ne buy dox nga bokk waa këram wala bokkoo fa am nga fi wàll boo xamante ni war nga ko fi mën a ñëw même bu benn xëy la sax nga jaayantoo saa su ne ñëw delloo ko ko njukkal moom sëriñ bi euh, kon nag loolu doon na loo xamante ni ci maanaam ci rappel rek depuis boobu tey ñu ngi koy ànd ak ndongo yi di ko teewee saa su ne ci yow lu bari mu di euh, ndaw ñi moom li leen conseil rek moom mooy li sëriñ bi waxoon rek sëriñ bi moom da koy liggéeyal di ko ñaxal di ko tey di ko jox loolu yooyu moo ci am amaana nag ñu bari mun ñoo matale loolu ndax ñu ci bari tey danoo def ay demande euh, ay demande permission ñu bàyyi leen am na ñoo xam ne def nañ ay demande permission seen seen liggéey liggéeykaay daanaka amuñu ko euh, kon nag ñooñu tey li nga xamante ni kenn ku ci nekk lépp loo bàyyi loo na rek jàpp na ni am loo xam war na ko mën a remplacer bu dee daa fenn fooy fooy yëngu euh, nga nga ba boo mënee ñuy dem loolu leen mën a yóbbal nga yóbbal leen ko loolu nekk na loo xamante ni te it liggéeyal sëriñ moom njariñ kepp a ci am ndax tey boo koy booy jug di ko def yi say waajur sax ñoo ci di ko bëgg say say say say say mbokk maanaam ci ndax xam nañ ni lii dara nekku ci loo xamante ni luy lore la kon nag nekk na loo xamante ni dañ ciy sant bu baax di di di soññaat ndaw ñi rawati nag euh, ñi nga xamante ni daanaka tey ko gis ci réseaux sociaux yi koo ci gis ñu naan la ay diw saaliw walla diw saalixat wala nangam te yooyu yëpp maanaam ci bëgg gin bëgg Serigne Saliou la kon nag lii day nekk ay occasion yoo xamante ni euh, daf ciy baax nga wane tamit sa bëgg Serigne Saliou waaye nag nekkul ni nag teewaay gi képp la ci foo ko mën a wane ci wàllu yóbbal gi loo ci mën a barkeelu nga barkeelu ko loo ci mën a tamit def ngir lépp mën a mën a jaar yoon mu doon lu gaaw loolu lépp tamit ñu ciy soññ suñu mbokki taalibe yëpp ak fépp fu waay mën a nekk ci àdduna liggéey bi bu jotatee loo ci mën nga def ko ci doon na loo xamante ni euh, yow yow ak ñi fi ñëw yéen yéen yem ci yool bi ndax saa su ne nit yàgg naa ñëw dama kat man de wax dëgg yàlla li mu li ma façon daaw ci xel ko moom gis naa ko moo tax ren damay dellu kon nag doon na loo xamante ni moom euh, jarul ñu ci jarul ñu ci soññ kenn ndax ko àndal ñun ñépp ay sëñ eh, sëñ Basiru ñoom sëñ Njaase eh, ñoom sëñ Mor Njaay yëmbal ñoom ñëpp nekk ay jàmbaar yoo xam ne ay jàmbaar Serigne Saliou liggéeyal ko ba ñëpp xam leen tey ku leen gis xam ne ñi ay ndongo Serigne Saliou leen ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom sant goo xamante ni moom amul àpp di tamit di gërëm tamit ñi nga xam ñoom lan àndal di waa Touba Notaire doon ay ay ay jàmbaar lool rawatina waa daara Miftahul Nasri di leen sant bu baax di leen gërëm ak képp koo xamante ni daanaka jàpp nga ci xelkom bi ak foo mën a ne ci réew mi wala bitim réew ñu leen di sant nit ñëpp bu baax a baax a baax a baax ndax gis nañ seen taxawaay ndax fii lépp loo gis mu ñëw fi rek ñoom ñoo ko fi def gars yi ñooy dajale ñii seen i 1000 francs ñii seen i 5000 ñii seen i 10 francs def ko ci ñëw liggéey liggéey bi euh, daanaka bu lépp mat ñu dellu seen i kër fii loolu képp mu ma fi kon nag ñuy santaat mbokki taalib yëpp di santaat bu baax ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mu yàgg fi loolu téwér di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool lool loolu téwér ndax daanaka moom sagub murid la moom waaw kon nag ñuy santaat ñëpp rek di jaajëfal ñëpp di leen wax ni daanaka tool yi moom mat na di ñaan déwén incha allah kenn ku ci nekk ca la nga nekkoon suñu borom yokk bu baax boobu booy ñëw ren nga moom nga mun a am ba booy ñëw déwén nga mën a am noo ñëwee di ñaan tamit mbas mi nga xam moo dal ci àdduna yëpp suñu borom teggil ñu ko ak ak xat-xat yeeg coono yeeg yooyu yépp ba nga xamante ni daanaka euh, kenn ku ci nekk di nga gis sa bopp maanaam ci sëñ mbiru àdduna bu baax a baax a baax barke Serigne Touba. jërëjëf sëñ Assane Fall ñu ngi lay delluwaat ziar di la joxaat sa wàccuwaay bu baax nga nekk ci mi daayira na si doon kenn ci mbooloo mi ko xam ni euh, sa pas sa pasteef ak sa bëgg sëñ bi moom amul naataable kenn dootu ko naataable ñu lay santaat bu baax di santaat mboolo bi yëpp comme ni ñu ko waxee waa Miftahul Nas ñëpp ñu leen sant di leen gërëm bu baax xanaa rek dañuy demaat rek euh, seetiwaat ñeneen ñoo xamante ne mën nañ leen dénk suñu micro ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo di xel kon jaa ngeen